mbokki jàkkaanu ci nuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci di Ahmad ci bërëb bi nga kër Cheikh Bamba Khadim Rasoul di kër Serigne Touba. di fiki nuyoo fii ci dëkk bu sell bi nga xam mooy Daara Khoudous ci bayti ñu feggoog sang bu tedd bi nga xamante ni Serigne Ahmadul Mukhtar bakiri di xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha tey jii nag di bis bi nga xamante ni moom taxawal muy yowmal asura asura nak di bis boo xamante bis bu am histoire la ci lislaam bis bu am histoire la itam ci yoonu murit ba tax na ñu nekk fii ci bayti feggoo ki nga xamante moo di sëriñ Mbay bayti saahib maktabatu nuur moom nag moo ñuy xamal lan mooy njariñu bés bi ak bis bi njariñ yi nga xam moom la làmboo waaye itam waa ahbaabul Moustapha di soppee Seex Moustapha yi dañ ciy ziyaara tey ki nga xamante ni moo di sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbàkke ñu tàmbale woon ko ci képp koo xamante ni nekkal na fi Seex Muhammadul Moustapha ba tey jii kon sëñ Mbaye dinañ ñëwul ci solos bésu tay bi waye tam siar bu am solo bi nga xamanteni mom lañu wara def ci kanam ginaaw suñu sërmëlee takusan ci kanamu sëriñ Ahmadul Muxtaar mbake di khalifa Cheikh Mouhamadul mustafa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama bokki jullit yi bokki soppe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen sargal ci bis bii di yawma ashura al mubaarak yawmun mubaarak walana fiihi shay'un fiihi lan nushaarak muy fukki fan ci weeru muharram tam xarit ñu ngi ci sargal fii fi daaru Quddus kër gu sell gi kër sëñ Tuubaa Xaadimul Mustapha di leen ci yaatal bu baax fas yéene ñëw ak yéen ci laaj bi sëriñ bi laaj te mooy bis bi bis bi day bis boo xam ne moom yow ma Ashura bis bu màgg la xamunu beneen bis ci bis yi bis bu ko ëpp histoire am taarix ci kilifa yi nga xam ne ñoo jàll di mag ñi ba àdduna soosoo ak tey liñ yaxal ci téere yi li xew ci bis bii ci teraanga ju yàlla teral nitam moo tax xam moo xam la yonent wala euh, waliyu bari xew na ci dafa mel ne daanaka ku ñu tudd rek ci nitu yàlla ci yonente yeeg awliyaaw yi bis bii am nañ ci ndam am nañ ci ndam ci yenn anam yéen ñep ñu bari umpale wuñ ni Cheikhul Khadim tënki mbirum bis bi ci masalikul jinan ak ni mu gëné gëné li ci ne lépp juñu nako ca yeen yi fi jaar ku ne ak gëné la la ci yàlla defal ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mustafa al mahbub مخدوم شيخنا mi ngi junji loola mi koy junj naan wattafaxu fi faxdil ashura ala la si yudduha bi tashua maanaam sayyiduna muhammad dafa dénkaane woon ci atam mu mujj ne bu ashura dellusee na ngeen ko fonk na ngeen ko màggal woor ko teral ci njaboot gi ndax moom taasuwaa lañ daa màggal di ko woor la jiitu lislaam sax daanañ ko màggal ngir la ca mas a xew ci yonente yëpp dara ci sayiduna aadama sunu maam moom moo ci njëkk am tawfiq njëggal ga ci lawoon ci bis bii la woon njëggalam ga sayiduna nuux muccam ga moo gaalam ga bis woon sayiduna Moussa bis bii la woon ci Firawna ba pare alak labal ko Yunus bis bii la ko jën wa gëqi Sayyidina Isa salaam ci bis bii la gane jamono ci la génn jamono ci la yéegaat euh, muy bis boo xam ne kon bari nañ ngëneel sunu yonent sallallahu alayhi wa di seen di di xaatimul anbiya moom it ku ne xam na ne bis bi bisama moo digle nu màggal ko moo ko dénkaane bàyyi fi ne moo gën a tedd moo gën a màgg tachua kon nañ jël nañ gën a fonk Ashura Cheikhul Khadim am ci ngëneel yu rëy am ci ay xunmu ay xunmun baarit rawatina al xunmay ni al mashhuray ni في يوم عاشوراء لشيخنا الخديم بامي واخنا يوم عاشوراء عليا نا يوصل لي اجوره بلا انتهاء مخن له مع النبي سير انتهاء بخس ديغ جيخ جون غيني ليو خامن خمنا لكلنا بسبي واي ام جيم ام توبا اك ام جيم ام شيخ مصطفى مو يار يو خامن اي نداب لاني يو مونتا نياك سي سيغ توبا غير اب ليغييم تاجو با بري صح ngir liggéey bi mu doon liggéey mu taaju diju ba pare sax ñaar yooyu mënu koon ñàkk ab dëkk akub taaw bu mën a taawu ci yàlla dogal na sëñ waa amee ko ci yow ma Ashura weer wii la ci bis bii taarix bu soree tuuti rek ami juuyoo am nañu ne Cheikh Moussa benn panu muharram la gën a jamono comme ni ñu ko waxee ci yonent bi salaay salaam gàmmu sax benn bi si jubóowuñ ci si bari lañ indi waye japp nañ sani asar Fit Cheikh Moussa loolu dalaan na ko moom turandoo mu tedd pan bi am nañ ko wax ci muharram am ñu wax ñetti fan yi am ñu wax fukki fan yi am ñu wax fukki fan yi ak ben lu ci ne bind nañ ko ci téré mag yi waye nun ahbabul Mustafa, nu japp Ashura nu jël Ashura diko ci dak diko ci magal muy bis bo xamne Cheikh Moustapha ci la feeñ jamono bisub Cheikh Moustapha daal la di bisub sëñ Touba sëñ musaaka Ka junj na ko ne Daaru Salaam yow ma Ashura ñëw na de moo doon nganeem ga booba laa miraa fekkoon na bàyyi gini li si xaari ngir bëgg a ñëw Touba mahal abraari waaye gis ba mu ganee àdduna jis na booba leeru rasulullahi sarba Touba ma ngi fay junj leeru Touba gi sëñ Touba gi ci bis bi. mel ne kon yoor yor benn bis bi seex Mouhamadul Moustapha wàccee ci suuf gën àdduna ci la sëñ Touba gis leer Touba même heure même jour seex Moussa gën a jamono ci suuf Daaru sëñ Touba gis pàkk bi nii fii ci suuf Touba boobu da daan réer na ñetti fan door koo gis wax ko gën a jamono seex Moussa ci yenn nettali yi kon. Euh, ashura mi ngoog bari na ay ngëneel lool ban am ci sunu la boole ko sunu wàll yi jiitu woon noonu nag nu jël ko kon di ko di ko màggal tey di ci dàkk rek ngërëmal yàlla di ci séentu njéggalu yàlla di ci sàkkoo jaamu yàlla di ci sàkkoo dundal sunna sayyiduna muhammad ak diineem ci lan ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu téye diine ji yor ko di doonay sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf di xulafaa yu tedd yi kenn ci ñoom di Cheikh Ahmadul Muxtaar ki yàlla teg fii fi pays bi ñuy wax Daaru Xuddus te sëriñ bi wax ne Daaru Xuddus li rabbil alamina mursili ahmada koo kii fi ne tey bis bii di bisam di bisu baayam di bisu maamam di bisu turandoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nu ne nan ci dàkk ngërëmal yàlla dàkk ci ngërëmal yonent bi ak sëñ Tuubaa ak Cheikh ci sëñ Ahmadul Moxtaar ci bis bi màggal ci yooyu yëpp daan xew ci adduna di ay ndam yu gaa baax yi daan am màggal ci ndama ndam yi sëñ Tuubaa yi mu ci am ak i màggal ci ndamu sëñ Mourou Moustapha li lépp nag ñu teg ko ci kanam Cheikh Ahmadul Moxtaar ci loxoom ñu ñu tawasulu ci mom yaakar ci jam ak barkem ak kiko fi tek di sun borom ak mamam bayam ñu sak bis bi di sun bisu njéggal di sun bisu mucc di sun bisu mbég di bisu teranga ku fi tew nuy ñaan sun borom ci daraje bis bi ak lii bis bi ci mbud ak daraja yi liñ koy tax ñuy ziare moy xubbul mustafa ndax kat bis bi dañ ko dello yenen bi sallallahu alayhi wasallam def ko moy bisu xubbul mustafa sopp yenen bi sallallahu alayhi wasallam sallam xubbu xadimil Moustapha sopp juri yenen bi sallallahu alayhi wa sallam xubbu xalifati mustafa Moustapha sopp ñi jëwriñi yenen bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh mustafa mi seigne Ibrahima Diop waxon ne ko xadimu xadimil Moustapha wabnuhu lësi به قر عين الكل لما تقدم موي جوري ني جوري ني يانتبي قديم قديم المصطفى تاي دومام نك جمك جو خامني بامو جيتو رك لا خال دال خول سد كوكي ني ديكو سي ديلو نجوكل سي بيس بي كون سيني مودو مصطفى سابي يانتبي ييب سابي سيني توبا ييب سابي شيخ موسى ييب سابي الخوان ييب نيوكو ديلو نجوكل سي بيس ديلو كوكو جوخ كوكو فاس teg ku tis gannaaw tisbaar ñu waaj teg ku sànn bu sëlma bu sëlmalee xalifaam bu tedd bi génn ci diwaawul hamdi ñëpp maase siyaare ko sargal ko sant ko delloo ko njukkal jox ko suñu hadiya sàkku mbégam di ci sàkku mbégum yàlla nag ak ñooñam ci sàkku mbégum sëñ Mourou Moussa ci mag fàkk sàkku mbégum sëñ Touba ak yonent bi di ñaan ci bis bi ñoom ñëpp ñu teew fi suñu sang yu tëdd yoon yii ñu teew ak noonu ci bis bi dimbale ci yërëm nu ci sargal nu ci teqal nu ci ak musiba yi tey ak ëllëg defal nu ci kaaraange gu yéemu ak mucc ak barke ak jàmm ak salaam ak tawfiix ak ngërëm yu mag ku fi teew yàlla na mucc tey ak ëllëg am njëgal sax ci njub xolam laab suñ borom defal nu la sëñ Tuubaa wax ne ku siyaare na nga teqali ko ak bàkkaar ba pare bari alal واغفر له أوزارا وكل من خدمي خدمني أوزارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا فارسقه هدى ومالا njub alal teqali ko bàkkaar yooyu day sëñ Tuubaa kii nax kii ñuy siyaare te mooy sëñ Tuubaa rek kii ñuy siyaare mooy sëñ Tuubaa jënn jëmu jee Cheikh Moustapha mooy sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Mouhtar mooy Cheikh Moustapha te Cheikh sëñ Tuubaa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nu ngi ñaan yàlla defal nu ci yooyu mooy barke alal mucc ak teqalikoog bàkkaar teqalikoog bekkoor yàlla saafara jàngoro yi saafara ñàkk yi saafara musiba yi saafara Moustapha bég sant ci nun nu gën a tege ci yoon wa loolu rek mooy bis bi lu ci soññewaale nag liggéey bi nu sasoo ci kër gi muy daaray kaamil ci néegu alxuraan bi ci kër Sëñ Tuubaa gi ahbaab yi tabaxoon ko boobaa léegi yàgg na ràpp na nu war ko yeesalaat moom it nu bëgg képp ku dégg suñ kàddu na ci daal di ñëw fekk sinu ci néeg bi nañ ku ku nen sa jëf na nga mel ci yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh Moussa ak alxuraan na nga ne jëfee ci daaray kaamil ji soo diggee sunu kàddu nu àndandoo jëf ko defar ko ba mu ba néeg bu yéeme bu rafet boo xam ne na sëñ Tuubaa bëgg néegi alxuraan dana mel ci taar ak rafet ndax ñi fi jàng alxuraan di ba nee ba al kër gi sosoog léegi mosuñu jëndal saa bu ñu xëyee jàng ñaari kaamil bu nga doon jàng ñaari kaamil wala benn muy ñett ñett wala ñeent léegi ñu daje fi jàng fi kii ñaar fukki kaamil léeg yenn fay jàng ci xew yi kon néegub alxuraan googu lu bari man na fee sottee aajo yu bari mën na fee fajoo ragg yu bari mën na fee saafaroo ku dégg suñ kaddu noonu la ciy woo boo mënee ñëw ci sëñ daam bëgg Bàmba mi ne ci béyti yor béyti yor gaari sëñ Tuubaa yi loo ko jox dana yegg si ci liggéey ba boo jàkkaar boo fexee ba jokkoog man di njëwriñ si ci suñuy numéro téléphone 77 177 99 11 wala 76 699 66 44 loo soo ci jokkoo nun loo ci jëmee dana ca mën a yegg bi isnillahi tabaraka wa kon noo ngi woo ñëpp ci liggéey boobu yi sëñ Tuubaa nag nee na woon ku liggéeyal ci kër gii di Daaru Xuduus ci tabax ak saytu bagages yi jumtukaay yi bi naqli amtiati wa bil binaa yi xayran yax bitum bi xayrum yi woo xam ne dees na ko cee ñee faw ba pare it fegal uh, uh, dindi faral say bàkkaar ba pare bis penc ba doo fa gis looy tiis loolu sëñ Tuubaa ko bind ci xasida gi mu tuddee daaru xudduus li rabbil alamina mursid ahmada ak xasida ga mu tënkee fii daaru xudduus yi loolu sëñ Tuubaa ko bind kon noo ngi ànd ak jullit yëpp taalibe yëpp soppi yëpp ci lool yi na gaaw na gaaw kon sëñ bi loolu moo doon waajtaayu ziar bi ba takkusaan incha allah nu jéem a dajee ku tedd ki siyaare ko te jëm yàlla tax ak sàkk lu baax إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان والسلام عليكم ورحمة الله waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf Serigne Mbaye Serigne Mbaye Longoor Serigne Mbaye Beyti saaxibu Maktabatu Nuur ñoo ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel ci waxtaanu am solo bi nga xamante ni indil nañu ko tàmbalee ko ci ajura ak njariñ la la mu làmboo waaye tam waxtaan nañu ci taxawaay bi nga xam ni Cheikh Moustapha amoon na ko waaye itam dikkal ñu itam ti ahbaabul Moustapha di soppee Cheikh Mouhamadul Moustapha yi nga xamante ni képp ku fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha yowmal ashura gi nga xamante ni siyaara ji boroom xam-xam ak waaju baax da cee bokk ci sart yi wala ci li nga xamante ni bii baax na ca ñoom itam ñu tànn ku fi nekkal Cheikh Moustapha ñu lay ziar kon looloo tax siyaar baa ngi noonu ni mu ko waxee léegi rek taxawaay bi ñun ñëpp la war wàccul kenn kon sant ñëpp gërëm ñëpp ndokkeel ñëpp ñaanal ñëpp والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته